mbokk julit yi leen di fàttali di leen fàttali suñu bopp ci li nga xam ne mooy wax li nekk ci wax ci lor ak lekk ci njariñ sunu borom moo ñu digal ñuy wax wax ju baax tere ñuy wax wax ju safaano mboolem gaa yu baax ñëpp noonu la doon teye seenu ba duñ ca wax wa ay malu nyaaw ñaaw moo tax wax na ndax juxuma len ñaari bët ngir ngeen ci xol lu dagan waye bu ngeen ci lu gis lu sip bu dikene ngeen gembu ko mutal len ay mbar yo ngeen ko tëje wutal ko ay tuñ momit ngeen ci wax lu bax waye bu ci lu ñaaw de ngeen tëj tëj seen gimiñ waa day naaxu naj de di mu wan tag len ci yoon tam yoon wu bax ak wan len yoon wu bax ak bi len yub aljana ak yoon wi yub salam kon yàlla wan wan nañu jox na nañu bët yu nuy xool yoo xam ne buñ war nañ ci xool lu dagan waaye suñu làmmi bi itam ci wax lu rafet ku ne xam na ne la wax ni mu amee solo ci nit ndax ñàkk mën a wax ku ne xam na ni mu mettee ci nit waaye aw làmmiñ nag ñu xam ne dafa bari danger yu nekk ci moom bay jeexeet yu muy bay danoo wax ne làmmiñ ngànnaay loo xam ne dafa am ñaari ñaw ko xéewal la ci képp koo xam ne boo tënkee soo làmmiñ ba ci tënk ko ci sariya di ci wax lu ñu lu baax di ci tere lu ñu di ci wax xam dañ ciy tere lu lu bon lépp di wax lu baax di ko ci digle xamal ne yow da am texe ci sàmmiñ àdduna ak àllaaxira waaye aw làmmiñ nag mbugal la ci képp koo xam ne dangaa bàyyi soo làmmiñ muy wëndeelu rek di xuus ci ay yéeg lu araam yi lu ne mu wax lu yoonam nekk lu yoonam nekkut lu mu xam ak lu mu xamut kooku nag xam ne làmmiñam woobi ak mbugal la ci moom wax na ne benn baat rek tax nañu ñu rey ci nit benn baat dina ko wax ñu rey ko waaye benn baat tam dana tax nit mucc ku waroon rey mu wax lu tax ñu muccul ko ci kon kaddu am na solo benn baat dana yóbbu nit àjjana waaye benn baatam dana yóbbu nit sawar yonent bi sallallahu am na ci ñu liggéey ci këram xam ne mbi naan li dox ñeen ñu wax jànq koo xam doon toon julit ba mu wérédee mu dem di ko seeti fekk ko ci sukaraat su yonent bi mu ngi ko si téenee dana ko waxal laa ilaha illa allah mu ne tekk ndax ba mu bàyyi bàyyam du julit mu xool baa bi suñu baat wax laa ilaaha illallaah baayam ne waxal li la wax laa ilaaha illallaah ba mu ko waxee baat dog baat boobu mu képp moo ko yóbbu àjjana benn baat boobu kon nag wax làmmiñ nañ koy ma nañ koy téye bu baax a baax Yonent wax na nit dana wax benn baat ca sàkku ci ngërëmul yàlla rek ca ba mu koy wax sax moom baat bi day woyof ci moom waaye mu yëkkati ko dara ju kawe kawe waaye nit dana wax baat boo xam ne itam da ci jëlee yow mi koy wax doo ko faaleen day woyof ci yow lool waaye nag mu yóbbu la fa gën a sori ci sawara kon lu mat di sàmm kàddu la ñu xam ne ku ne yaay sa responsabilité ci li ngay wax tam leer na bis penc loo mas a wax gis na ko teg sa kanam ne yaa waxoon lii ndax suñu borom kat wax naa ne dañoo booleeg ay malaaka yoo xam ne ñu ngi suñu tegg amna ko koo xam ne suñu am na mooy bind lu bax li ngay wax ki nek sawan bi bind sawan bi lo def dana dana ko bind te bu demee ba ci bis penji sax do yam ci bind mama waye cër ba moy wax la nga defon ci yalla wax na ne wat khal khal insan ma wonu ma taw sun yalla man nee moo bind nit ñi te li sa li ci sa xol mo moo la xam kon li li ngay nañuy sam suñ kaddu yu bax ci diine ji bàyyi la ci yoon wi ku ney wax loo wërta wax kenn xamatut la nga war a wax ku wax ku ne jël kaddu ne lii la bëgg a wax wala lii la jublu woon def say commentaire ba ci kilifa gu mag sax waxee léegi egg na ci loolu danaan lu lu ngeen gisee wax sëriñ bi te wax ka ko xam ka ko wax boobaam rek moo xam lan ci jublu bu ko bu ko leerul kenn mënu ko wax xam kon nag nan moytu di jël waxi jàmbur léegi nag audio yi ba fa bari whatsapp yu bari groupe yu bari loo nit ñi di enregistré waxi jàmbur coo xam ne du ko yëg ndax wax dafa am waxtaanu biir néeg am waxtaanu pénc ak afaan wax moo di ñëpp ko bokk nit da ngeen dikk ci moom waxtaan ak moom ci waxtaanu biir néeg mu enregistré ci yëgul loolu mu ngi daan enregistré génn ko loolu bàkkeer nga waxtaan waxtaanu ëtt sa waa kër ñu génn ko ci mbedd ma ci yëpp daa am wax nu ko tëralee kon na moytu wax ju bari ak jàllale waxi jàmbur ak di partage waxi jàmbur yooyu yëpp ay bàkkaar moo ci nekk. Yonent bi sallallahu wax na ne ku gëm yàlla bis bis penc del wax lu baax mbaa nga noppi am na ku ma sa ñëw ci ne ko daa bëgg nga wax ma lu may tabal àjjana. suñu àdduna ne ko té génn làmmiñ bi ne ko téyel sa làmmiñ bi boo ko téyee rek da nga dem àjjana doo ko njëkk wax loolu sax mu wax ko ko mu ne ko waaye xanaa xamoon ne ah, ci ëpp seen làmmiñ moo leen fa nag aw lu mat a téye la yonent bi wax na ne bari na nit koo xam ne benn dana wax benn baat te ba koy wax sax bay wuute xel baat boobu dana ko dugal ci sawara sa gën a sore soo xam ne dana sut penkook sowu mu wax ne ab jullit dëgg mooy ko xam ne jullit dana mucc ci aw làmmiñam mucc ci ay loxoom doo tooñ kenn ci saw làmmiñ wax ku lu ñaaw waaye doo tooñ kenn say say cëritam mucc dëgg mu ne mooy ku watt saw làmmiñam ba doo ci wax lu ñaaw doo ci def lu ñaaw Nabi sallallahu alaihi wasallam han kep ko ko xamne warlu nga ñaar yi mo warlu la aljana non ko ñaar yi ne mu ne bi nga warlu ko ak sam pay ba do ci def do ci def moy yalla ku def ñaar yoy yonent bi ne mo la warlu sa aljana motax ñu bëgg bala nga nettalee ti waxi jambur nang ko gëstu bu wéré wér ba xam moko wax ak la tax mu wax ko ak ndax wax ji na wax balang koy jallale fenn ndax wax kat saa bu génnee boo jàllalee waxi jàmbur wala nga moom moomale ko ay wax ba mu xas ba génn dabuwaat gi kenn mënu ko rawatina léegi sax ak technologie bees bi boo xas ba génn jeex na bari na fi ñoo ñoo xam ne tooñ lay nit tàggee nit ci ci ci la ba finne boo demee ci du mëntu faa jukk ak waxi jàmbur yoo xam ne da koo ko génne te loolu du fa jógati moo tax yàlla wax na wala taf maa yaslaka bi ilm lépp loo xam ne amoo ci xam-xam bu leer bu ko waxate ndax xamal na a sama wal basara wal fuada sa nopp bii ak sa bët bii ak sa xol bi may li ngay xalaat lépp kaana anhu masulan dana la koy laaj bis pénjéede waxaat ci alxuraan na bu leen ab saay saay indil seen ab xabaar na ngeen ko leerlu bu baax a baax bala ngeen koo jàllale ndax man ngeen koo jàllale kat jëlee ci ak rëccu kon nag nañuy gëstuwaat bu baax tey moytu yokk waxee jàmbur ak jëmee ko fu ko jumawut ak tuumaal nit ci wax ci wax ak commentaire waxe jàmbur yooyu yëpp ay bàkkaar yooyu moo ci nekk. yonent bi saa saa dana wax benn baat te ba mu koy wax du ci du jubloo caw ay sax mu dugal ko ci lu mat juróom-ñaar fukki at juróom sawara xóotaay bu toll noonu. kon nag nañuy mot mat moytandiku wax ju ñaaw tey wax wax ju teey yàlla wax ci alxam xooloo li naasi usna dee leen wax wax ju rafet. ndax saytaan képp mooy ki nga xam ne mooy jax jaxas nit ñi jamono yu ne di la tuumaaloo nit di la waxloo nit loo xam ne wérut wala amatu lu wér waqul li xibaadi yaqulu lillati hiya ahsan إن الشيطان ينسع baynahum إن الشيطان كان الإنسان عدوا mubina يلا نينا سما جامي دي yi واخ جو باخ wax ju baax ci ngeen xam ne saytaane képp ngeen di jël waxi jàmbur ab di ko tasaare tax ngeen nga xam ne saasaane am noonu mag la wax na ne baat bu baat bu neex mook sarax ñoo waaye baat bi moo tax ndax ci xol lay génn day tàbba ci ju neex ci xol lay jóge tàbba ci xol la muy meññite aw yu aw yu ak barke rek moo ciy jógee waaye nag wax ju ñaaw moom aw ay kepp mooy lay jële ak alkane نطيع ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كثير طيبة أصلها ثابت وفرحها في السماء تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يلا لك مثال واحد باخ من من غرغو غرغو ميني داي نيه كرغا سد بنوب نيام نيام و نكو جافانديكو فاخ جي نياو نك موم داي ملني غرغ واخ نكو ديجيتي با دارا سوفا kenn du ko mën a jëriñoo danaa xëy jàpp ci làmmiñam ne ko yédi salaam fu ma dugg yaa ma fa dugal Ibnu danaa jàpp làmmiñ ni ko waaye xaka xul xayran taxanam del wax lu baax kon nga am xéewal gu bari aw uskut xan soo in taslam wax lu baax baa nga noppi moom la Ibnu daa wax awal ndax boo ko boo waxul boo waxee lu ñaaw faalam annaka sa tandam saa boo waxee wax ju ñaaw da bu yàgg a yàgg da nga ko rëcc Ibnu Abbas dafa wax na moom itam ne nit amut ci ab cëram lu ko gën lu gën a lu ko gën a sonal aw làmmiñam mooy li ko li yées ci moom kon nag fotol de ko de ko natt di ko wax loo biiw di ko jëf loo yow Asanul Basri moom dafa wax ne amirul badani mooy buuru bat yaram wi mooy làmmiñ parce que bu sa làmmiñ de tooñ rek sa cër yëpp ay tooñ waye bo fegalé sa lam yi ba du tooñ kenn sa sa cir daan jub kon nak nan téye sunu lam yi ci diko jëme fu baax sunu xa sunu yaakaar tey Seexul Xadiim wax na ko ba ne na am yoolu koor ba nopi woro del téye soo lamiñ ci lu amul njariñ képp ko xam do doo lam lamiñ do ci wax lu amul njariñ yàkk wóor yéen am yéen am wax na ne képp ko xam ne nga ci ay tiaxan yàlla dalay xëccal neexaay tudd yàlla ak wax ju baax ak neexaay déglu lu baax ak tere lu bon moo tax mu wax ne amal lis aw làmmiñ mooy li gën a noonu ci nit loolu sëñ Tuubaa wax amal lisaani faxlaman bi annahu axdabu axdaayika faxfazannahu yàlla dalaa jox làmmiñ ngir nga bare ci looy jàng alxuraan ak looy tudd yàlla ak nga nekk ci di jubal ci yoon wu gën a jub di ci yàmmu yàlla kon nag nan fexe ba suñu làmmiñ yi ñu ci fax lu baax di ci wax luñ xam luñ xamut suñu yoon bañ cee nekk bañ a dugg ci ak di moytu nag di di jàllale waxi jàmbur ak yu mel ne yooyu yëpp wax nag daa bari yu xaju ci moom juróom-ñett yoo xam ne incha allah buñ ci kanam buñ xutba yi yëpp ci kanam danañ ci dikk ndax fen ci làmmiñ ma koy def xëybatu jëw làmmiñ ñu koy def werante làmmiñ ñu koy def war war woteeb del wax nit laa ñu koy def moolu nit làmmiñ ñu koy def yooyu yëpp incha allah dana ci dellusiwaat ak ak i siikaru bari caaxaan yooyu yëpp làmmiñ moo koy def ci ay bàkkaar la ci bàkkaar yu mag la waaye dana ci dellusiwaat Sëriñ Tuubaa wax ne bu ma nit ñi xanaa sukkoodu wajtanib xatiatan naa la jamihi maktasab képp koo xam ne sax nga ci noppi. suñ Tuubaa dana suñu borom dana la fegal ñaawteef yépp te loo bëgg danga ko am wax na ne Abubakar Sadiq dara fab ay xeer di ko dugal ci gémmiñam ngir bañ wax ragal wax kon nag nan moytu wax baax a baax ñu tëj eggalee xutba bi ci fàttaliku nga xam ne moo la ñu war a fàttaliku sunu waajur bu baax wi Seexuna Abdul Ahad nga xam ne ñu ngi jublu ci màggal bisam bi ci nokal julli yëpp nak di ci teel ak Mauritanie yëpp di ci fàttaliku way yi nga xamné ko mom la ko Cheikh Abdou assis wayon rek di ko al ulama ya مدحا علم العلماء يا أجود الناس ترا مفرد العالم منك يودال xam خم خم يب دسال نان ديلا mi nga xamné ya gëna tabé ñep ñep ñep bo yontin ho ya mufrad al ham bari na ku ñàkk ka min faqirin ka ibin xala bari na ku ñàkk lool jaaxle lool wa aaba yaskurukum kam kam wa kam wa kami te bu dikkee sa ëtt ba bu delloo de day sant bu baax loolu nag kenn mënu ko lim ñi nga xam ne daanañ jaaxle jamono yu ma saa toll fii rek maa nga seenam yooyu guddi yi nit ñi ne fanaan tàng muy séddale ab dund loolu rek ñu ñaa koy fàttali ku baax sa yettumu kullama xat kaana mun adiman mu ne ko lépp loo xam ne màbboon na min bihri walidikum ginnaaw suñ tubaab lu fi mabboon rek fu yàqu woon rek nee nag bi nga dikkee taxawaale nga ko ba mu dëgër yow mi nga xam ne yaa gën a sell ay jikko mu ne ko bu fekkoon ne yow mii ak faatu dis na ko mën a jot kon daan li nekk ñu ñëpp dañ la ko jox jote ko ngir nga def loolu rek doy na sëkk ci aw tagge ci Cheikh Abdou Aziz kon nag ñu ngi ciy ndokki julli yëpp.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 طول لنا عمرنا سهل لنا بلنا وحبنا رسول التوفيق يا الله